par ñi na ke conseil na ko vraiment attente o sembo warata baakele surtout jeunesse wala côté là donc wo attente o ñing waleya titna jama bi i kata duma siro la kata tubaab du donc euh, kabul casamance kata tubaab du duma siro la moi personnellement je ne serai pas d'avis à ceux qui diront non à l'immigration et kata clandestine parce que ni ma immigration clandestine okay Mounialo est chanceux sur le légalement. Ike Contel est dans la région de Sédou, disons-nous la vérité. Mm -hmm. Ike Contel, même en chance sur le voyager non légalement. Mhm. donc euh, ni tata juɓe mbi dimba jamal ka balu nawo ma fawna jumañol leke alta kola mun finti tawi tata la banta gollom émigrel ti ala ya kele wol fintitale tata ñinindiro ke ni wolli tata e soto légalement mais à partir de ce moment vraiment euh, mbema sakunda dan la munela ye emploi créé ye emploi créé jeunesse ole mhm. mais jeune fana ben leader ndoma ye chance o dila la nommé dans des directions est nommé dulal to mu yalon ko vraiment be moi si j'ai un conseil à donner à monsieur le ministre ça monsieur le ministre il faut nommer les jeunes dans des postes wolfanaɓe moɗol talale ibajalale ko vraiment euh, on aura beaucoup de chance et cette immigration molɓe mum kele kan de aɓe talalale par ce que ɓeete la silati te ɓar fana keno la tamalalti ɓar fana tamano la légalement bar dol fowol ɓe tamalal illégalement comme ita soñamen donc euh, nte euh, diamo monopolisé là, mm-hmm. euh, en sous vraiment big up. En dessous, euh, vraiment, euh, moi je compte sur toi. Hein, au niveau de la jeunesse, euh, on vous demande vraiment de mettre le paquet. Et on n'a pas le temps à attendre. Il y a des projets qui ont, qui sont, qui, qui, ont démarré à Kédou. Mettons-nous au travail et terminons-les pour la jeunesse. Et on compte beaucoup sur cette équipe que l'État, que le président a choisi. Et on, on ne sera ni ennemi, ni quoi que ce soit, à qui que ce soit, mais on a notre point de vue pour le déroulement, les bonnes, les bonnes actions qui se feront au niveau de jours. À la barque à 24. Ok, merci. à la ok merci beaucoup Esso euh, chaque fois émission intervention. tout à fait Euh, Esso sama ko ah, Nous euh, euh, parce que comme nous nous koy exemple vous nous jël exemple Judo ñu famille yo am alal. Mhm. dañu man papa musul Afrique sax musul Sénégal. man doon école di yegg sixième la papa jël retraite mhm. donc imaginez sixième sixième collège 6 hein, sixième élémentaire donc sixième élémentaire ba terminal ba am ba dem maîtrise ba toll diplôme kon foog nga am courage ak gëm-gëm pour yegg fu nga mën a jë yegg sama premier voyage bama kay def di dem à l'étranger j'étais à l'université xaw moon sax li voyager musuma am passeport musuma am xaw sax li visa mais bama ma passé concours dama passé ben concours bu UNESCO doon organiser yalla def ci concours mo ma doon passé si Afrique de l'Ouest man rek ma admis ba ma admis ma nar voyager mais imaginez man ku musul tukki musul am passeport mais dama tok rek di xaaral ah. dañ ma woo ne ma wuy sànne bon concours bu nga passé yaa admi yow yaa war a dem représenter Sénégal Canada man la loi c'est bien grand bu ma toppoon di ma naan defal concours bi defal concours bi ma dem gis ko ma ne ko mais grand nee nañ man ma admi dama war a dem Canada te man passeport sax awuma ko mu ne ma écoutez il y a pas de souci comme yow yaa admi nañu dem ba moo dem utal ma waaw ñu jëlaat keneen ci ligne bi salaamaaleykum mbokk bi salaamaaleykum maaleykum salaam tur bi ak koy wote sëñ bi Euh, euh, Talla Mamadou Ba maa ngi woote depuis Paris. depuis Paris ah, da nga bëggoon am lu nga sant ci. depuis Paris. Mhm. waaw bëggoon na am lu ma sant tuuti. Ah, di nuyu sama grand boobu toog foofu noonu en tout. yaa ngi may dégg. Mhm, ñu ngi lay dégg ñu ngi lay dégg bu baax ñu ngi lay dégg. waaw maa ngi sa sama grand bi ngeen jégal ma ko nag dañ tala ah, man jaaka ma moom man temps ma ko ñaamu quoi. bon on est tous la Casamance je connais bien Sédhiou je connais Ansou Fouta te tamit loolu quoi bari waa bon je le connais parce que nag nag euh, bon j'ai mon mon bac au lycée Boudiagne de Sédhiou. Mhm. je parle en expérience en expérience de cause parce que Ndel Badiane. Aliou Akele naata jàng.

moi il y a beaucoup de personnes qui parlent, mais ils ne savent même pas parce qu'ils n'ont pas vécu, ils ne savent pas. Ils parlent. Mm. Ils croient que ce qu'ils disent, les jeunes qui parlent ils ne connaissent pas les dangers qui, sont, qui se trouvent sur la route. y Parce au Sénégal, on a laissé tout là-bas, ne doume sur l'autre. On sait bien ce qui se passe. Mais on a plus de risque. Parce que, pourquoi Parce que ntolɓe tu ɓeɗum so ɓeɗum sénégal le nana bago suɗon taade université yanno grand a so an suɓɓe sirin je sono grand c'est un était le mool maako université ye mool tenke on était on faisait tous partie du mouvement des élèves libéraux de Sédhiou on faisait tous partie de ces mouvements là allez à qui après Bodo Dieye on a eu nos diplômes je suis un maîtrisant j'ai eu mon maîtrise à l'université Cheikh Diop de, de Dakar géographie je suis resté là-bas pendant un bon moment dara doxul université tu ne comprends même plus il y a tous ces problèmes qui gagnent dans le Sénégal après yow it nga mun ji après bu ko fekkee parce qu'on ne t'a pas donné les chances yéen diplôme soo tey quarante yi 40, il y a 40, il y a 40, il ko siile te kaw ñu daanaka duuma si loo nga tamit ma rog la vous m'entendez bien alors ne allo waay nte tambita Maroc Vous m'entendez bien Maroc Allô Oui Il y a un mun de il y a beaucoup de

Jamaa ni de n'a Espagne mhm. mais le problème c'est que le quoi moi je suis je de originaire de mhm. le problème c'est que c'est pas de nommer des gens il fait partie de la mouvance présidentielle encore il le pouvoir le même de il fait partie de la Mouvement présidentielle il a nommé ministre là encore

c'est grave. Il n'y a rien qui avance là-bas. Rien, la raison de Sédou, c'est la raison la plus pauvre. Hmm. Donc, le cabinet d'affaires, vous le ne le Sédou Bindoum Djedje. Bêtement, ça m'a fait un peu bizarre, ça encore non, attends. Donc, c'est les jeunes, la plupart des jeunes qui sont, qui, qui sont dans les villages, on les Kita. on les Kabata Ils étaient au Maroc. C'est les villages, c'est pas nous la raison, mais c'est les villages que les villages, parce que la plupart des gens que je connais, le monde, vous le

pour ici, il faut y beaucoup dialoguer, il faut y... Parce que c'est ça, tous les pouvoirs qui sont passés, chaque fois qu'il y a été là, potentiel de budget, il faut que faire investir car calmement, ni région de mais sécurité, ni Kolda, ni Sérou. Il faut que faire investir. Mm. Toute la jeunesse, ni n'a pas ni n'a ni n'a rappelé que vous l'êtes. Là, avant, c'était quoi C'était euh, euh, les enseignements, non volontariat. Mm. Ça, vous formez sur le sang. Ça, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, jamaa baada après le régime avec le régime de Macky Sall yëpp mu nekkee il faut non après mun borom kilo la université maîtrise pour tous yëpp mun bloqué à partir de licence j'en connais beaucoup de personnes beaucoup de gens ko kaw jalinta jalinta bekkitee la on était tous kawin na licence sur bitan maîtrise gars yi bloqué il y a augmentation universitaire il y a il y a il y a cinq jamaa bal je connais beaucoup de samay de samay samay ko say fii Dakar yi ba Siri Ndié mun na day licencié ba mun la ji xëy ji dëddul noonu je suis là jusqu'à présent je suis en contact avec eux bari wóolu sa moom la portable yi boo daa jiitaat grand yef am pagaay portable yi contrat c'est des licences, licenciés mi ankoy bon portable dara foy den maa karan imaa loppo bari imaa lay bu ibitaa daal yi bu munke la tous ces jeunes là c'est des jeunes c'est de la gâchis a le diplôme au sotole mon du ko soto fele dol de Dakar mo yaa noo mi encore du mon dingi ibaa dumbe jam ay ku doo kiiyee avec risque et péril il y a un yàlla nay ibitaa daami isa faanoo jëy bi jiw na taala te maa baal de woo ko noonu Dakar bindu ike eh, konteele wuloo kono ari seeju ntel ntel dummbe seeju jama baabu wuloo kono par ce que munoo y a beaucoup de problèmes ceux qui ont la eu la chance wala ki taa Dakar la yey débrouillé ji mais oɗo oɗo ɓoga taa le problème euh, ndotata bake euh, débat centré mum to wolon seeju mi seeju mi Ziguinchor mi Kolda de mm, la région de la Casamance jeyi il faut que état on a on est des gens qui peuvent défendre pour pour que jeyi a yëpp yee yee maa koy. allo. allo oui. waaw Kéema nee na intervention mooy lay euh, c'est très c'est vraiment intéressant euh, bari fan ak isa ko donc auditeur audi euh, téléspectateur fana bijeel mu yaanu ko lefte ko dung te nii la loon tam fana ñeent kàccaalaale. donc ok ok amul merci amul problème amul problème. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh-huh. Uh-huh. maa ok voilà merci beaucoup euh, afanamba kontonna euh, vraiment ka faye ko ko koleyalɓe dulalɓe toon mhm. c'est vrai que ay maroc fole euh, tu sais allez alay quelle de telle sorte que ay satel ɓel mum fof ntata jee mhm. j'ai été au maroc j'ai fait pratiquement toutes les grandes villes de Maroc, mhm. Casablanca, Rabat, Agadir, Marrakech. Marrakech d'habitude donc jamal bi jëm yalla ko passé wala parce que ni Marrakech pratiquement que Europe hen lan. Mhm. Euh mais ici mon pono c'est pas pour rien que bi nka foko phénomène lo. Jall ken ci ligne bi <laughs> oui señ bi

Donc, euh, ils n'ont pas le choix. Donc, euh, parce que maintenant, je ne pas pas choix photo. Aujourd'hui, le Sénégal est aussi développé que ça. Je ne crois pas qu'ils vont prendre des ateliers mhm. pour aller s'aventurer ou bien pour aller dans bon, pour aller mais en de vacances, peut-être un mois de temps pour faire ça et pour les affaires, ils reviennent. Mhm. C'est parce que le problème, c'est le système que nous, vivons. Mm C'est parce qu'il faut que les gens comprennent que tant que le système existe, c'est pas parce que le euh, ministre il y a notre meilleur, c'est du tout, c'est le ministre, tu voilà, tel, tel, tel. C'est pas ça le problème. Même il y a des ministres, tant, tant, des ministres dans le gouvernement, ça ne va pas changer grand chose. C'est le système que le système change. Le système, on le que nous nous assistons à l'ère des complexes, Des patriotes, des gens intègres, mais la patrie, le peuple devant, qui sont à l'écoute du peuple. Même, c'est pas que peut-être le mec est un opposant, non, pas du tout il faut analyser les choses telles qu'elles sont. Mm La classe de ces maquis là, tous ces enfants là il faut qu'ils comprennent que nous sommes à une étape de la vie très très importante dans le monde. Les gens actuellement, c'est le peuple, c'est la souveraineté du peuple que les gens prônent. Donc, euh, pour que ça doit se porter surtout que à l'écoute du peuple. Nous, l'Afrique, on a tout. On a de l'or, on a du diamant, on a de l'or, on a tout. Toutes les ressources sont réunies en Afrique. Et, pourtant, on est pauvre. Mais tous que les gens sont à ça. Il y a une banque qui est les ressources, qu'on est ressources, qu'on est ténétiqué, À part quelques pays comme la Russie ou quelques pays là. Mais les pays occidentaux, la France, dans le sous il n'y a rien.

l'Afrique va pas se développer. Et plus particulièrement, c'est du tout euh, Sénégal, surtout Fogny, Gafo, c'est du point. Mhm. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'intervention. l'histoire. Uh-huh, uh-huh. L'histoire suit son évolution, son cours. Uh-huh. Et ça, eux, ils arrêté, non, là. Merci. Merci. On merci. merci. Vraiment, On l'émission contente, de battre l'émission. Ok, merci, beaucoup, Kébama Donc, juste, il faut, faut, faut que les téléspectateurs me comprennent. ñu tëj téléphone bi tuuti bu ko defee ñu waxtaan ñu mën a waxtaan ak ak euh, Ansou suñu invité bu dul loolu moom yaakaar naa ni appel bu dugg rek duñu mën a waxtaan ko waa léegi ñu jekk ñu jekkali waxtaan bi fu ñu tolloon. voilà maa ngi doon wax sànq parce que da doon wax que ni euh, sama certainement nee na pro suma promo la parce que xamante nañu al l'université mhm. euh, je disais que ni que ñun juddu ñu fekk suñu parents yi am mhm. dañu jóg xeex ñafe muy métti ñuy nekk si classe yi ñuy gis ñoo xam ne seen papa dafa yor alal ñuy sol lu lu rafet ñun ñuy sol benn mayo suñu wàccee lañ koy raxas fóot mu set ñu duggaat encore dem dem jàngi ji mais tey su amee loo xam ne mu gën a gën démocratique mooy jàng. Mhm. ñu jàpp ko fa jàng ba toll fu ñu war a toll. tey sooy xool maa la doon nettali léegi léegi pratiquement sama premier voyage admis na concours international war a tukki aw ma sax passeport. Hmm. parce que amana donc ñu war alal yi ñu tamatu ki ñom ñooy yor ñoom ñooy mhm. mais man jogé si si famille bo xamné ne bon voilà taxul donc suñu am démé fu non mënu ma naan damay passeport. Mhm. mais benn nit ma woo jàppal ma utal ma passeport. ba mu utalee passeport jiit naa ko si yalla xaw ma sax ni visa da koy dem déposé ji dama tok et en licence de géographie mais dama tok université de xaar tok na ba un jour ñu organiser donc concours bi au niveau de Canada ñoma wo néma yow dugal nañ sa tur ce système immigration Canada mais gisuñu sa tour. man len ah man luma xam si si si si si si déposer visa ñu ne ma non <laughs> demal déposer ce visa au niveau de l'ambassade du Canada envoyé nañ sen tour yeen ñep ñu admis au niveau mondial envoyé nañ sen tour demal nga déposer pour nga voyager Madame dem lendemain bi effectivement ma déposer ba ma déposer à trois voire quatre jours donc voyage bi si veille voyage bi lañ ma woowaat malheureusement ba ma demee ba tam ñu ne naa bàyyi ba lendemain bi lendemain bi lañ naroon quitter vol bi dem bàyyi ma nan lay def musuma voyagé musuma xam tukki voyagé na vol bi dem na ma toogaat jàpp sama ñambur heureusement ma envoyé mail organisateur ne leen donc euh, euh, vol bi bàyyi na fi parce que sama visa génnul ñu ambassade ma dem fa visa bi génn ma jël ko ñëw wax leen ko période boobu dañu wër si vol yëpp amuñu amuñu plan de vol pour ma voyager ñu envoyé ma benn mail ne ma donc finalement yow mënatuñu la yóbbu parce que concours bi c'est c'était donc formation bi c'est intensif et que véritablement donc comme raté une semaine la ok a pas de souci ma len mail donc vraiment je vous remercie vous m'avez permis de rêver vous m'avez permis de passer un concours donc sous donc sous régional bu nga xam je vous remercie par rapport à ça le seul regret que j'ai c'est le fait que que je sois admis parmi donc tous ces jeunes là et que donc que toute la, jeunesse de l'Afrique de l'Ouest soit absente de ces formation là. Mmh. ma envoyé leen mail boobu man leen donc bon bu dul loolu maa leen sant di leen gërëm envoyé leen mail boobu dem toog continuer sama jàng. Mm-hmm. mais taxul benn yoon nga jël yoonu. suuf bi dem non tooguma sax musuma mm-hmm. xalaat. Mm-hmm. malgré pauvreté bi ma nekkoon malgré jafe-jafe dund bu ñu nekkoon malgré ñëw université sans bourse. nga xam ne dama doon jóg di dem gale sama sama grand frère doon xoslu dem di manoeuvrer donc pour ma pour ma mën a jàng am ticket mais taxul ma xaddi dama leen wax loolu euh, deux jours après. lañ ma envoyé donc billet billet vol euh, euh, mon billet d'avion pour mon voyage. te boobu Amana, fukki qu'il laa yoroon nekki bu qui bu ma waroon añ université aw mais lui mais lu le def ba tout tukkee dem Canada une semaine là fa def ni la ndax man man dama euh, léegi laay ñëw wala dama yàgg ñëw une semaine là fa def deuxième semaine bi ñoo tolloon niveau ñu pare examen yi ma major si concours boobu ñu pare si ñu def concours international me remporter le prix international de Australie international mais qu'est-ce qui s'est passé après imaginez donc jeunesse ak monde bi yëpp je fa man mu jóge Sédhiou dox dem ba ma remporté dans le premier prix de l'Australie international jël Mazor effectivement comme commission euh, UNESCO au niveau mondial dañ ma proposé notamment donc notamment la commission canadienne de l'UNESCO de rester au Canada pour gérer le volet jeunesse de la du comité du patrimoine mondial mais je leur ai tout simplement dit que, parce que le comité du patrimoine mondial, pour une dit que les trois meilleurs, nous dem euh, proposer ce projet donc, au niveau donc, des, pays. Hmm. Malheureusement, donc j'ai eu des difficultés donc, pour proposer donc, ce projet-là. finalement, le projet est tombé à l'eau. Mais renoncez au Qu'est-ce qui s'est passé dans le société Pour voir que le problème de l'immigration, parfois, devant voir la société. La hmm. société, nous avons donc, ba ma ñëwee gars yi dañu may xool yow lan lu tax nga ñibbisi mhm. première question bi ma laajte lu tax nga ñibbisi nan nga mën a demee ba Canada di ñibbisi te yow xam nga seen situation nu mu mel mhm. ma ne leen mais écoutez man ba may dem xamoon naa ni man samay compétence dem naa fa fekk fa ay tubaab jaar seen kaw nekk première du ma am projet boo xam ne mun naa ko fi andi doxal ko ma xëy fi bàyyi naan damay damay damay toog foofu mhm. te amaana projet boobu jeune yu bëri mën nañu ci liggéey mais je vous dis le jure devant Dieu ba ma ñëwee 1000 francs la 6000 francs yoy 7 6 sañu mo won dem fenn sax di len wax que ni may ma passe wala may len ma ticket parce que ma ngi soko au canada pour wax len donc psychosociologique bu être am donc pour étranger mais ma muñ ko tok géré 1000 francs pendant 20 jours lélé ma génn amna banque ya vous selim je parle sous le contrôle d'un ami qui s'appelle Sidi Kamara professeur de philosophie à l'université de de de de de, Ziguinchor donc du, lycée de Ziguinchor mais dañ do dem tok yaawu silim di xaar añ pour ñu añ pour mun a continuer ñun suñu liggéey def mais def nañ ko amaana donc amoon naa visa Canada desoon naa ay jour mënoon naa lijjanti delluwaat mais dama ne ni newoon ni que par force gars yi fu ñu jaar ba tekki dinaa jaar fii te dinaa tekki dinaa am lu ma war a am alhamdulilah si laa dellu si waat duggaat université xam ne que fii xeex la ko da ngay allié jàng dëgër fit combativité pour que mën a dem si la ñu wàcc xeex ba jël la mel national Mac Toussaint Mangara

la rigueur gëm sa bopp gëm donc ce dëkk pour mun donc yegg fu nga war a yegg mhm. c'est vrai dina am jo xam ne ñëw nañu dëgër nañu am na lu ci yoon bu ñu mën a jaar yomb na dañ ci jaar dem du leen mës a blâmer quelque part dañu né tous les moyens sont bons pour réussir mais yenn réussir amana amaana du ko jar mhm. xoolal nombre de personnes xalé yu décédé du président Macky Sall moy tay accepter nangu que ay doomu réew bi di décédé ci géej gi ku ko waxtam da nga wax ndax wax lu neex du ben père de famille moy tok nangu ay domam di décédé en mer du ben rak du ben sœur moy nangu lool su amé rek xamal ni que c'est par par par le cœur meurtri que dañ ci gars accepter mais du par donc lo xamné da len neex donc il y' a des conditions yo xamné tek nañ ko fi condition du ma sa doy mais sooy xol am tek nañ fi ANPEJ tek nañ ci fi DER

ndaw yooyu noonu préparé nañ leen dëgg-dëgg ngir écrit écriture ay projet ak yooyu parce que ndaw yu bëri tey am nañu seen idée wala wala am nañu projet en tête mais nu ñu koy bindee wala nu ñu ko tëralee loolu c'est ça c'est pose problème est ce que yéen tamit yéen a ngi xalaat ci loolu pour xale yi xam tey naka la ñuy rédiger projet ba tey euh, onge bu ñëw wala euh, tey benn structure bu ñëw rek ñu mën a déposer carrément seen projet. tey say xool su ma jëlee kaw DER. DER dafa ay spécialistes yu fa nekk. di liggéey ak ay experts yoo xam ne tey soo mënul defar projet sax dañu lay wax demal nga gis seen seen expert boobu wax leen seen idée de projet ñu ñu ñu bindal la ko rédiger la ko jox ko waa DER ñu financer la ko donc système bi mu bu njëkk ba dañu daan jox xaalis rek ñu bàyyi la nga dem mais léegi dañ lay jox xaalis bool la ak experts yoo xam ne dañu lay topp pour que nga mën a réussir maintenant suñu la joxee xaalis encadré te yow lu ngay def sa gëmoo ko du mun a a dem nee naa la donc ñun ci condition yi ñu doon jàngee ba yegg fii képp ku si nekk. soo amul ak yenn yenn yenn gëm-gëm yi da ngay bàyyi dem sa yoon. Mhm. ba may jógee Canada presque def naa fi après 3 ans wala 4 ans yoo xam ne donc maa ngi doon xaslu biir université sama visa jeexuloon mënoon naa ne non attends man kon métti na baal ma delluwaat quoi delluwaat dem dem dem dem dóori te jéesal c'est que voilà nekk moon si condition yoo xam ne donc condition yu favorable maa ngi leen di wax dama doon toog set di am problème pour lekk. Mhm. mais il va falloir que tey su may wax jeunesse bi que ñu gëm suñu bopp nañu gëm suñu bopp. gëm ni que réew mi fii mun nañ fi tekkee da ngay xool affaire ko coronavirus bi coronavirus dafa jot ñëpp tëj seen frontière mhm. léegi loolu lan lañ def ku nekk mu ngi am sa problème sa dëkk ñun suñu gëmul suñu bopp gëm ni donc fii mën nañ si jël ay initiative gëm ni que mun nañ dugg si àll bi for dar darkase ndaamaraas bi mun nañ ko for lekk si xaalis bu dul jeex gëm ni ko donc màngoo yi daanu comme ni ñu koy wax effectivement woote na am na ko fi wootoon ne léegi lu euh, mu tëdd sax Sédhiou changé ma xam naa ne gëj na fi parce que c'est du légui gumbay sax suñuy dox xamnañ ko Sédhiou dafa changé. waaw loolu lañ ci ñëwaat mais nekul ay ki ni motax ñu ne Sédhiou changé na de. non en fait dafa né donc Sédhiou donc nu mu meloon la ko bàyyi woon. loolu mm-hmm. xama xamna né donc c'est peut-être c'est 10 ans avant ça avant mm-hmm. ñun suñu yegg ci mère bi mais pour wax lé que ne mango yu yàqu dafa am plateforme industrielle yu ñu teg donc à à Bignona. Mm-hmm. plateforme industrielle yoy président ba mu lancer man sama structure bu ma nek mi ko sec dañu leen jox trac tracteur jox leen ay casier. casier mooy lan mooy foo xam ne dañ ci def mango yi pour mu bañ a yàq ñu jox leen plus de 3000 casiers yoo xam ne donc mën nañu ko si dugal. maintenant bu dee donc tukki bi dañ ko jël kon effet de mode mais sawaay suba mun nga jog dem yow yaa ngi nii toog di job xam naa ni donc léeg-léeg mu mais yaa ngi toog donc gëm lu nga gëm te xam naa ni donc li leneen moo leen siy fekk di ngeen dem toog ba seen télé bi mu doon donc loo xam ne pour nga dugg bi sax dina jafe

du permettre nit yeneen nit yi ba dem jël gaal dugg ci ba ñàkk ci seen bakkat xam nga moom laa lay wax ni que affaire bi après des des des day problème bi xam nga lu ngay wax noonu du problème gouvernement. Mhm. Mhm. problème société la. Mhm. moom laa doon wax ni que tey man su ma toogoon euh, tournée gis xam nga donc patron du 24 ñëw na wàccee na auto bu rafet rek man mu bëgg ko am. wala toog naa donc voilà ay doomu baay lañu kenn ki tekki na ma bëgg a kut ko kut foog ma tekki parents yi foog ñu jàppale ñu si loolu. ñu xam ni que tey du tukki taxul a tekki que tey gis nga donc si quartier bi ñi kii am na liggéey kii am na kii la am na liggéey parfois surtout sax suñu yaay bokk na suñuy gën a encourager seen doom ñu jël gaal gi di dem mm-hmm. parce que ñoom dañu ne amuñu xaalis fu ñu jëlee xaalis bi lu si ëpp si maire la ñoom ñooy dugg si seen si seen natt mm-hmm. teggi jox ko seen doom ne demal mm-hmm. bu ñooñu suñu contribué nu gëmloo leen que ni tey am na nañu seen mbokk yoo xam ne si dara la ñu commencé wul mun nañu cité Modou bu dee Sédhiou la fii. Mhm. Modou Fall si dara ba muy commencé commencé wul si dara. Mhm. si lu ndaw la commencé. liggéey na ba tey mu ngi yor boulangerie am yor ay otom yor ay butikam yu mu tijji parce que lu tax lu ndaw lu mu commencé woon amaana donc si cinquante mille bu mu commencé woon tey moo ko jox tey ay millions. Mhm. kon man lu may waxaat encore jeunesse bi métti euh, ñu ngi demandé état bi na état bi liggéey na état bi def ok. état bi muy tek tek ay ay support du munu ah. mënuñu mënuñu wax ni que état def na lepp ba mu mat mënul ne ben état munu ko. ñàkk liggéey bu nek bu nek Sénégal ñak liggéey bu mo nek Europe mo nek États-Unis mo nek Asie wax naa la que tay dem na fu ne dem na Corée du Sud mu mujj Corée du Sud sax da ngay fekk ay nit di yalwan da ngay fekk ay jeunes yo xamne dañuy tok xamne di di di di euh nu mu kay waxe sax def kon kon kon yor seen yéré di jaay ci yoon bi.

de seejo 24 ka konton monsieur faye an muso ay jow ka interneto be konto invité bamin bidje to ñanco mhm. le président Ansou Sané mm -hmm. euh, ato présentateur fulol be vraiment bal konton na mm -hmm. le thème est très intéressant mhm. euh, de régio to siaka baba ok sorigno mhm. équipe technique de bal konton na euh, les voyages clandestins en Italie mais il faut avouer qu'il y a un échec de l'emploi dans le cadre de la politique même de l'État. Mhm. On n'accuse pas Macky Sall parce que l'État n'a pas commencé par Macky Sall. Il faut, il faut, il faut avouer que un ni Afrique Mamoulou rawatina le sénégal tubabu du ñaaje moolu ka duma siruluta c'est parce juste que imam le soto c'est vrai que ñanta moolu nominé mais les nominations mais nous bu ko ku il faut qu'il développe d'abord le secteur de de l'emploi il faut qu'il développe des facteurs milbatinano la moolu be silale ye balou. c'est important mm -hmm. euh, pour dire la vérité ni du jeetoo mieux kukulama tu ne peux pas être satisfait sans te lan dron pour ka boyal boy al sial ke tan nga pan dama fa fam boy ta mais j'avoue que tubabu du ni tole ama mulu ni subolo jan subole siat jan jan abele <laughs> bi jan amuso ah. siata ko do barkata mhm. abanko yirwata miyo ke parce que ils ont ils ont pu ils ont pu développer des facteurs encore comme l'emploi et autres et autres assurés mhm. OK c'est vrai que bi pourquoi tu vois des, des diplômés des jeunes diplômés mais que bat bili kata c'est mhm. parce que ntolia balu mandia wulo ko janteng bar jambenteng o dit. Mhm. il faut que ça soit clair c'est du euh, Sénégal font vers le nord mais la Casamance ni a que notre plan politique nous sommes sabotés mhm. et nous ntola fon kamuru est un symbole. on est saboté ni tata bignona amul papa Sédhiou amul saram Tamba mhm. Tambacounda dara Nekofa, fa nga madame mhm. Julien Sor moo gën a dee ok yedaaw daama guddoom poolu mooy mooy fàttali tu vois mhm. n'y a rien tu tu dors tu vas tu te réveilles tu vas vieillir comme ça donc am dara do gis dara mu leer ok ni Julia m'a ɗo six mois de ɓoylani par ce que Julia kene bénéficié ka balo e buka tanum c'est pas possible ok bi

min ɗum village o tan susane joyi gamoyla ka fof ko ni e manngol fenke e a ni gaɓatne ngololi mais wol manngol ni o darkasel dumal gol bonno kunti on kono ke samba banta silol man baraka et puis y a pas d'usine y a rien y a rien manam casamance jeunol ka wille ta sutole bi ta dokol daɓe ay kamin fo seno mais attend fontol ɓe mu senalallede seno doron tijaw il faut développer tout ɗo hamle nii ñun loolu lañ bëgg maanaam funding teew li foo koy état yaa lonk allo mhm. allo maanaam on est dans une politique boo xam ne euh, boy da da ngay dee quoi foo ñu waxante nag da ngay dee nii man ke jalooti yiɓe kela suŋulti quoi nii man ke suŋti yiɓe kela jeenelaati yo you know wo doronna bigi amul leleen ñaata goos ñoo jàng ba ne ar bàkk Casamance c'est comme kayto mi le bàkkoo sole siri te banna parce que fenne tijee amul lalandi kamin fo projet de jeune o mbel ɓulu an so mbiɗa ngano ɓa fala fa mi e ñun xam nañu on était là loolu ay door la loolu ay door la il faut que nit ñi ñu ñu qu'on ose dire la vérité allo mhm. allo waaw bu nekkee dem nañu euh, continuer ak voilà euh, SPK moom ñëpp xam nañ ko quoi mhm. bon tantôt daf may wax ni diplomate la mais ma ni diplomate war na saaga en direct mhm. euh, di ko wax rek ni Sédhiou moom mhm. il faut que gars yi nangu que ni am na lu fi am mais doyul nañu yokk man ma mos a toog fii di wax que ni tout est rose non ma ko mos a def parce que wax naa leen man sama jaar-jaar du ma am jaar-jaar boobu ba pare di gëmloo nit ñi que que voilà que lépp nice na mhm. SPK présentement mu ngi Europe man Europe dama fa jaabante dem naa donc foo xam ne fu la gars yi di nekk nañu woote mais dafa métti dafa métti dafa tar parce que pour nga am liggéey bu baax sax fa nga am kayit bu baax système bu muy def dañuy mujj at même ñu rëcc sax dañuy mujj obligé gis ñoo xam ne am nañu papier pour pour pour que ñooñu ñu luwee leen seen papier suñu liggéeyee am lu ñu leen jox lu res ñu gérer ko. Mhm. donc man lu ma mën a wax mooy que fii euh, question bi c'est tellement sérieuse que. que duñ ko jël naan ay waxu politique. du ma ñëw fii ay jeunes di décédé donc si géej gi ñuy bi wax de politique foog que parfois suñu tollee donc si yenn niveau yi que gars yi jël politique tegee ko nële. Mhm. waxante suñu biir quoi parce que émission bi c'est euh, voilà.

revenir donc encore xolaat yu bari yo xamne dina mëna tax ke gaay mën ko régler mhm. tax gaay yépp bëgg dem parce que dafa yomb so gisé gaay yépp bëgg dem muy am pluie parce que dafa yomb su metti mhm. won tek ay système yo xamne donc gaay dinañu mëna def de sorte que ñu mëna tok fi am luñu liggéey am luñu ah. sutural amana donc du am pluie yépp ba essay yépp di am bu nekké am na ko ci lañu jël ko allo allo allo waaw ñu ñu continuer voilà donc euh, laa doon wax quoi pare woon waxoon naa donc bureau, euh, Canada pour un peu joxe donc exemple bi man damay toog di waxtaan ak ay jeunes ñu ñëw néma donc vraiment fi dafa tar tay soy xol donc so jëlee donc kaw Maroc tay ñu si ëpp si diplômé yo xamné ñu am sen bac am sen licence et autres c'est vrai que ñu ngi Maroc mais lu ñuy def Maroc mais ñu ngi si centre d'appel yi hmm centre d'appel yu nek Maroc tay amana donc il paye bien ñu ngi gérer sen dund ñu ngi gérer sen laaf ñu ngi yónnee xaliss fi man ñaata jeune noo ñew wax ma que ni ñom dañu bëgg dem Maroc dem outil liggéey. mais ma jël sama. xaliss xaalis jox jëndal leen billet d'avion ñu dem. allo mm-hmm. allo oui. waaw est. allo oui. waaw ñu ngi la dégg mbokk bi tour bi ak tour fa ñu wootee ñu ngi lay dégg bu baax a baax. salaamaaleykum. waaleykum salaam tour bi ak foo ñuy wooyee. Jakante. Jakante. Di wote fan? Waaw. Kaver. Kaver. Uh -huh. Da nga bëggoon am lu nga sànni ci émission bi. Émission bi waaw effectivement. Waaw, acca ñu ngi lay déglu bismillah. Ok, c'est juste kal konton kal tentu kal jay al loña ñiña ñi mala. Mhm. Uh-huh. Mm Albe do ko mun pour séjula avancement na. Mhm. Mm Warka. kala kala invité fana konton mun keta mon ami et mon frère en Sane mm ah, voilà quand on e konton baake fanfan merci grand c'est juste pour ok alla temo ngala moyle témoin be diari ne aussi comme allez jeunesse la côté le ma parce que immigration clandestine je ne le wala ka pratiquer à 80 Tout à fait. Voilà, donc euh, c'est pas facile, c'est pas facile. Ben, à travers une émission, wala batindan peut-être que la mol jeunesse on kachan a nga la mais solution mal mal trouver mais la ma faux abe banna le ferme mais une peut-être que asitalan asabi mol bina mun be folaha masa kunda man do kubunda le yele wala abujo manyina kitan hani ma fo ministre ade ani si abujo le ke president di o ma tina dol manta parce que en suye mun fa rek o le be mol kun kono gom gomo lom rek mhm. mole amra fo ni manta tuba bun de resur la donc no mbulu hani fe mol be seju ton mol ton sol be ken na mula be do ko la be do ko ni la firije e ko be ta ta ko la mhm. wol soto tal ndaw yalla wol ta fala man do ko so peut-être que ni mo tan ne ta ta lon ko mo sabal be do ko la baro sabole do ko le tuje ko be ta do ko do ni na tuba que mun be kun kono tuba bu wala beti mhm.

il faut nga kɛ taama la direct donc nga karan fili on est parti. tout à fait. donc bi en dessous, elle a étudié a ye concours le faux a ye diplôme le soto bi o diplôme ntel mo soto san bi même si on a fait 30 ans à l'immigration nga en sous nga da mune la. amansi abakar. parce que naata banko mu ah voilà naata banko mu ma a ye bɛɛ ma peut-être que d'accord amanta aka sije commune del tara mun anyini ndiro me aka ta jela ala do bula ka samba je aka ka kuja ma jele mu ya lo ne ko bini a explication do le bu ka comprendre tel be jarta wolto nun to mulbe je ni a fo no grand eta ko ko te ke no la ku patati pata be bi on a vu parce a voyagé un peu partout Europe partout en hmm. plus mon dafta tamala malla fi mecci bu ka taranna ah kulun lota le bon 300 000 ben 500 000 je vais payer bitala eh, ibitala mais tu n'as pas de métier ni frata eh ibetar la munela ki ibe sada dan na balu be ni ko be do ko kala do ko bana mais be ni kala la profession mo bana mhm. tu n'as pas de profession hmm intéressant ah mais ça donc avec quoi surtout surtout ni ajwe c'est du jeune bi aw kante malundile en tant que monsieur du donti ni mole afanya buka diagne mais kontra kata al traje mul ko kafale mbita ñi ndiro lam funtita le après nim funtita ñi ndiro kono tu vois du n'importe quoi mu kan ku wili munela dole mi no nyama sabo sai wala en tekindi wala ben tel kala fendi pour ngana mu lalta andi ube quoi parce que wala siata nga je voyage un peu partout comme mo raison so rankon dol fawni ngeje malla fi yenje parce que mu no tebe condition mun kono malla fi fanni nyaake naliti donc womu manke tapo masa kunda mo dundol ku kono parce que ima mun ke situ mu banda parce bi bon nyakala kala manya suji jam bi ma spectacle tron te jakante donc ba kala mu ya ta ka ke mama ni fama ya mm, merci merci beaucoup ke wana tiata ti jone so kono mm-hmm. donc mol nyant tro to fana revoir la les pampan bon ma ta kunda fana effort ke ay ko ninkel ma ko musa tinano mo ɓeytere surno wala ha man sala côté la mais o mayt a pisiya la solution mbinalani mhm. kal tentu kal jaye kala invité konton fanfan aye taw so soto kene donc alma ɓe lori jeunesse ola kuwola ñaami mhm. alma ala fana yelo a fana na kuwola o mhm, ok merci beaucoup Kim voilà kamo ɓe tentu kamo ɓe jaye ok merci ok merci beaucoup d'accord euh, jak ja bon mbe ja kanté fana kontonna mba tentula bake ka jay ka fo kodoro wo conviction nga mun soto wole be ñin jaato ja kele jamal bi je mun yalon ko bi a kele fo bi ñi semo ni lycée donc ye kusoto a sunta tele kelod mhm. grève jamal bi je mun yala ke tumando bato mol sa ranon ko donc ñi kunjalo ot mais wo grève lat na bi que ça soit sem cm ma part diagne que ça soit lycée ibou diallo bi ye kusoto mu yalon ko tole kelolo donc bi ni wo mo yewo kelo ke pour mo le kusoto na bota aten teranna donc ani ni mo soto voilà donc euh, toujours dans le contexte donc, de l'immigration certainement alba fola donc euh, euh, nga tama ndiw mun ke wala yatna donc expérience jamal soto mhm. ndetat a agadir agadir satelo mu yanok abe maroko mi a jamfata mbo marok la mais mulbe silo kan a manke ni sada dan la mulbe jeto mhm. mais ikam mo fiul leje mul yanok be sada danul silo kan andu jumañollo wolti fonni kello mulyalon ko itata tata marok pour ni bota marok ye ten tan ye continuer e tatu wabdu mais ki tara situation to mulyalon ko donc e fa bala naro li ke tarawol to yele nafal bon ye ye ye fenko ye ye sokodo la wo do e ko kolita donc pour ye fa ici fam demal mm -hmm. baydi wata ni te na ni nga wol jewo nyam nga katele ke nyini kam mekeli mais nin tate nyini ka c'est vrai que nga sénégalais dol jijeto nga camerounais jijeto uh, gambien nga dol jijeto mais ka ñale koy nata pour ka tente mais inata jeeto donc ele ko ɗo manta i obligé takkatta ka saɗa ɗano ke silo kam pour e ɓalu momum ɓe o saɗa ɗanol mum ka pour ka ɓalu ni wol ye kulunta ya fay ɓe o joola yeta fo tema koɗo o yeñin ka koɗoli ko jet mais ketano ye fay ɓakol juma ne pertata donc encore une fois de plus il m'est arrivé comme nga fo ñami que ta maroc kenn ta ka diile la ka ta joto mu leana ka ta defen ka ɗo mais il m'est arrivé aussi que ta tubab du ke moltara jeto mulniya lon ko donc ni tolle karanta jonta itata a waduma silole itata imantara ɗo kole nakko ɗon tankol cika kadilen donc euh, ñi yafole bi ndol mum tuta janto nga doman doma a kolliyata nga mutam wol feje mon mam fisati de mais bi alhamdulillah rabbil alamin mom mun kata ka bojant say ka wotuwa dun kol bandi ay tarajeta ay kodo cika a dile la donc mon nyanta kenna kenna kol jube kote ke nga lon ko janto tumando bato ningi mole nyaayele ku jama be jama to donc anim makoy ɗantan tumanɗo ɓato donc janto en si kusornomu yalan koye mhm. sinna mbaɗimi makoye noir idi bu nekkee am nga question bëgg na posé balaa ñoo continuer ci ñu jël benn appel allo salaamaaleykum allo allo oui waaleykum salam albe albe heere to haydaro to dima eko contreante uh-huh. to dima mansour mansour dia mansour depuis paris mansour dia depuis paris mbela euh, mbenn grand contourna eeyi fanfan anin yiɗi mbal kontonna fanfankajaɗi ñaata diyata mhm. kabri num mbar suivre la sa num ka ɗum ka intervention ɗinke mhm. voilà en sous je crois que j'ai eu la chance de le côtoyer un peu pour kayitandal seulement que Abonanka ka mum fojan à travers la pointe de vue que euh, j'approuve depuis le départ. C'est vrai que Bindembe mais Kaitandala Université Si. Mhm. Donc ça n'a pas été facile, mhm. mais on a su résister. comme mhm. donc euh, avec nos papiers ɗum min ba bafola ko par ce que aɓe jeele foka ban walanaɓe position dol fola bari ka yitandiɗan man ko euh, immigration silo o manque silo ti mum yaha lon ko fondinke o foñanta emprunté lale mhm. kabriñi accident sotota bato nanten des centaines de jeunes mul yaha lon ko ils ont tous de l'avenir mol fote ɓe tuula nanten c'est en quelque sorte l'Afrique qui a perdu Aïmo tous les demi. Mm -hmm. Donc je crois que les acteurs premiers, nous sensibiliser les Wallon, les parents. Mhm. Parents moulia encore téléphone qui dit mal ni ibela sanol wafila ibela wafirol kelebe dajalol kelebe jolon ba adilele pour le bateau silota. Mm -hmm il faut que kol folo sensibilise ndi ka itandi la ko o manque solution folo to le nyanta kala solution la bondi mm -hmm. bi ni jono mu yalon ko e manson karona parce que c'est une question de soi mhm. Et e ko ko meccel bi jele mu yalon ko e sa keno le mu sa tinano e se famma ko e not hargel mhm. manki kilinti ale mul dal kilinti kaari e ñine soto a tata ñin silol la m fanan bitala wonten dool wol wulutale la destin yi mu taamalalle te dool munke taamalaate taamoo kadi a damin silo ye koy mamme pari mais bi ni clandestin li aliya long ni a lo e be ka e ka balu ñaamin dans les e rues de paris mhm. ba désisté le ko silota kanana c'est vrai que tuba biyatale comme jama kaafo ñaami mm -hmm. par que itel be condition be tollo kono en ila kay e tollon dol mu clandestin le ti ha mais sen fenne naata ni man ji adula soto i katara foyer le to ni mo foyer fon soto mum be accepté la i katara laarin silo le kan mm -hmm. parce que tebuli be kuntun kuntun na te tant que ma numéro de sécuo soto i muka dokuo fon soto no entreprise tetano la pour ye dokuo soto i katara ñin dokuo clandestin la pour ye famma koy mm -hmm.

la voilà apporter comme contribution à la oh, merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Mansour merci beaucoup Mansour merci beaucoup Mansour depuis euh, depuis Paris mm-hmm. suñu euh, suñu xarit la suñu aussi quoi mm. donc en man dafa am euh, lu bëgg parce que ñu si dugg yëpp ci affaire emploi la ñuy wax. Hmm. et est-ce que tey bu ñu jàppalewul jeunes yi bu ñu leen jàppalewul ñu jàppale leen ci liggéey pour ñu mën a am liggéey. Hmm. donc est-ce que loolu du lool moo leen di pousse ñoom ñu jugee fii di dem bitimu réew pour mën a daani seen doole parce que tey boo xoolee ñëpp ñu ñu jot a dem dañuy ne amul dara dëkk bi amul dara. te boo boo boo xoolee euh, Afrique yëpp. Hmm. Sénégal moo ci ëpp ñu jël yoonu suuf. donc est-ce que aussi du maanaam ñàkk liggéey réew mi wala nu fa demee noonu. parce que nous avons une question d'emploi hein. est ce qu'il n'y a pas une question de manque d'emploi cause pour laquelle Boy li jël yoonu suuf bi di est ce que ce n'est pas ça aussi. waaw xam nga que avons ko dañ ko tournel ci ci question d'emploi. emploi euh, su ma le maire Abou Diop il na fi ne jeunes qui ñëpp ñoo il suffit que nous employions

si donc il me que donc au niveau local des conditions de travail euh, créer un bassin bassin bassin comme eh, moussa italie italie uh-huh. Mhm. allo naa mel ni dem na. voilà je disais que ni donc euh, sooy suñ ñëwee au niveau local par rapport donc ak jàppale accompagner donc jeunesse bi. Mhm. wax naa que le... Allô, Allô allo on ngon lafaka participer à l'émission dafa am ba émission jibe la naaje immigré le locaux école Fajero kon nak ñi c'est à dire maa lon a kumo ate diyala moole mais momo ndella probléme o di afrique Oh, da am problème connexion. One, four, three, eight, nine. Dañu moo saturé quoi. Mhm. Ok, ñu continue ak Ansu. Parce que siita. ise soto ise soto kenoole itaamata ise soto kenoole. Jaajeen. bi moo jamaa bi tubaab du. Mhm. allo. ligne bi moo xaw a. allo uh-huh, mais la mooy kan. voilà vas-y allez. 3 3 7 6. bi dafa xaw a saturé moo tax gaa yi yenn saa yi dañuy dugg. mooy le. ah uh-huh, Nkem mooy le. ak allo. tubaab doomu kasool ti kaso. ñi dunta fo kaba yebuka fintino a mhm. mhm. fintewolo man feeya mais mhm. moo jama ɓe sirin tubaw du janta bi jeta afrique wala diyate mais bita kumun kumala kan jeeto kolon probléme oti mais mol fana ñanta mul na mais comme que an suñol ñinin kay telle be gouvernement do ko la jeeto mais les problèmes les problèmes fondamentaux mu ne an nan fondinkel ka bodu tu eh, afrique jeeto ko bita to tubaw do wala mu do ko te parce que que fondin geddita akaɓa niyo wafila akaɓita tubaw du ñata mhm. kuuɓe kuuɓe afrique mhm. par ce que bi ye tubaw du je tubaw du bi molka molka ŋaña tubaw du ika mun itandi tubaw du bijante o mantar tubaw du janto bi bata mun bijante o mantar afrique fondo mhm. laadol to mole to ña fo ñoye tubaw du jang ñaatiraw i ko ñi momu e sodoke tubaaw du a ka ɓe ŋañala a ka par ce que a e sodoke tubaaw du o ye sénégal ngol nafa mu mhm. ne la o ye tubaaw du ngol lo nafa par ce que ye do ko mum mbemu ke a ka dujanne momu ye sodoke sénégal wol fisate momu ye sodoke a tubaaw du janto mhm. par ce que biitilo mhm. tubaaw du mo jama ɓijanto bi kayti teebulu e man dow ku soto dow ku me soto e mantano kooma e ñaato bo koleyaariŋo yata kel koy bita ebo bolan tuba ebo ko bolan afrique e koye bita jii kono silo la mhm. nde maafo mo kannade par ce que ndiya moman ndiya mais mhm. mi e ikoye ibita to tubaw do ay koyima ibita silo munna mhm. parce que bi tubaw do anen nonna do mo manka kelinde parce que k'a fɔ ko kaari soto ke parce que a tubaw dow le muye soto ke afrique wala fisata mun ye soto ke tubaw do jantu parce ce que a fuutañaoña ani mulɓe afrique jee to ani wol se dow ko keno ñon kan jee mais ñe soto ke tubaw du jeen i koɗo koɗo cika i koye bitata afrique mais iɓe dow ko kele dami ke impôt jo wolɗo iɓe ko jengu impôt jo afrique wala mun della probléme o de ika nte la fa mum fala ensuye ñaaje bi tubaw e eh, tubaw du mo jama ka fa ibitatu tubaw du parce que problème jama la bije ñanta mun lijantela casamance fon kono seeju kono jeeto mangu mangu mangu junjelle mango mum ɓe siyaren seeju jeeto mhm. e man ji pour que ke jiyolti mhm. darkasel bijele darkase yalan a kasanjal jan au minimum darkase mhm. mu yalana man kilo si demi kilo il fait trois mille trois mille francs mais ñi mina afrique pour que ta darkase sanjeto ka kulo pour ka waafi mais ah, au minimum 300 francs non n'y a ñasiyata par parce que tu vas tubabɗo jang molla molla kafa tubabɗo jang ñinata ne peut réussir là non ije tarno afrique le ye réussir ye tara tubabɗo ɗum ɗan les réussir mais mon be afrique a réussir tu vas le ta wala ficata momum ɓe tubabɗo janta kono nak noole soto bo mum falale pour mol mum ɓe koma fanan i lafta kiliro la ke bula pour e kiliro ke saka kotu saka de Molé, parce que diamo man fe ya mbal be konton na mbal jayla merci beaucoup waaw idi ok alsa barka fan fan merci beaucoup quoi donc euh, en ce moment, mera mol sa continuer no monu ndandi ndami quoi ouais donc notre peut-être question ni notre non, c'est bon parce okay. que nous avons au niveau local quoi, les initiatives prises donc, euh, pour accompagner donc, euh, cette volonté d'emploi. Mm -hmm. Nous donc euh, le maire yaafanoonne que groupe pondinke groupe pondinke mul yaalonko yeppulayeɗo maalelo ni tata jeeyi ga vérifié que donc pulayelo ta ko wili kemele cika a addi lel pour yel activité ke anda wo wili kemo attema solo je fen fenna ni bénéfice o ke ila italon na tiñate bulu alon ka tiñate bulu ataye financiére côté ke bara amanna dan woto euh, i kamu fo ñe maliyando bassin donc mo donc ni aquaculture mhm. aquaculture mu mu euh, bassin oké mhm. donc c'est par trois mois chaque mois donc au minimum pour chaque étang mhm. ici 800 000 mais 800 000 bassin sabal mu ko karo kar donc ça récolte mais chaque récolte ici 800 000 mais le maire ya ki ay fondinkel kilipoto fondinkel ye na yet bula kono pour yow fen ko ye activité ke mhm. mais finalement musul le naata o programme o ta yake yo récolte clinique resol fula mhm. mais malheureusement nga janlo ñaami mhm. saba njaw amanke fan dolle ke tata bato donc ye julol kuntu pour fen koye bori donc tumando bato politique kuolo mais wo matina donc mol ye kuol bula man tan jeeto fana parce que ni jamal jeeye ko mu ne fo ka fole ko donc financement boko soto programme ol be bulu activité mol Euh, mm-hmm. Je rappelle donc ni deux ans ou trois ans Montambita. Le maire, donc dans des groupements donc, de femmes, il a donné donc plus de 20 millions. Mm-hmm. Vous 20 millions, vous quand dit musolo mu yana la banque ta e batandi mm-hmm. ye organisé musa nano donc il est makoy qui dit femme parce que ka fo muske bal mais ça. funding est menon le katara tara jeto mu yalon ko donc ka wo activité il ye activité ke dolbe commerce la dolbe ko to mu yalon ko réussita kon bon maintenant kubu kasi Maintenant, Nico Massi, c'est de croire donc à tes propres. Euh, yela la ifanna mm-hmm. ye jikiko xanna te kamar ba wa foleke mm-hmm. ni lata la donc ici ici firino akono nte nga marba wa fo mm-hmm. nga fataya wa fo je le dis avec fierté nga fataya wa fi mbama yele nga marba wa fi mbama yele nga salado wa fi le marseto mais bi alhamdulillah rabbil alamin mais y'a bɛrɛ fana uh, par rapport i tɛ ka min fɔ quoi donc euh, y'a lɔn fɔlɔntɛ jamano ani sɛn jamano ye man kɛ di quoi donc bi jeune il rêve di ka ka firin juna c'est à dire bi muna na ba muna ke no la fon firin peut-être dol bi je me y'a lɔn me y'a lɔn ko uh, satela wala ne, wala ka dol pousse pour eta être au niveau soit euh, au niveau international et tout quoi donc est ce que bii also solution ñaadila trouvéno moole alsimol ma koyno ñaadila pour bii bool kanatano quoi avant de continuer quoi bon euh, c'est vrai que yeyi firin juuno mum fo wole ndewndi mm -hmm. par ce que ni momo ko alafta firin juunole kena ɗum kuute mañanta ɗum namunda mm -hmm. euh, allo allo oui allo oui ça va Sédhiou 24 allo oui ngal ngal tentu ngal ngal kontong ngal tentu ne nejo nejo ça va antonom ofti ofti ouais ofti, ofti ça va masali wala mané ofti mané ofti mané ça va ça va ça va benyadi ouais bien alhamdoulillah je suis en direct ouais vous êtes direct Voilà, ok. Bon, je. Je. mets 5 comptes, mais en sous content, là. Hein. En soi, mais je l'avais moué, Voilà, mais c'est du 24 équipe pour bien content, là. Yo, n'y a pas de Ok, Jadjof. Donc, euh, Kafalieko, euh, en sous le programme. Oh. Donc, il a en sous le programme, il a vraiment moué le quoi. Et puis, il a, il a tracé quand même. Euh, il s'est donné lui-même un exemple, en fait. il s'est donné lui-même un exemple, en fait. Malon parle comme moi, le moi, là. Voilà, il s'est donné lui-même un exemple. Et je crois que n'attends pas à fond qu'à dit exemple là, c'est pour que euh, et qu'à euh, euh, la pédagogie du concret. À quoi le samba nama. Nde, à euh, comme on dit, ya de molie bodanto yeta, et que beka tubabdoule, ya wa batu sulola. Mais je veux dire. Mhm. three three seven six six six six. Hello. Wow. three. Wow. Uh, léegi ñu woyal waxtaan bi Idi nga tolloon ci question. waaw Idi mu ngi doon wax rek ni que léegi jeunesse bi dañuy teel a tekki moo tax donc ñuy bëgg ñuy ñuy bëgg dem. bëgg a bëgg teel a tekki koo fet bëgg a a tekki bon teela a tekki képp ku ne bëgg a a tekki rek xamal ni yaa ngi si yoon bu bon mhm. si man si lu ma gis mhm. parce que bëgg a teel a tekki mooy tax que nga def la warul def mhm. bëgg a a tekki mooy tax nga jël drogue bi jaay ko bëgg a teel a tekki mooy tax nga dugg si yàmbaay bëgg a teel a tekki mooy tax que donc xam nga da ngay gis ay xale yu 5 ans ñun dugg jël si gaal gi dem est-ce que bëgg tekki teel a tekki tax nga tekki non mais am na ñoo xam ne dund nañu ba retraité soog a tekki parce que parfois tamit amaana donc foog nga gëm ni que. Mhm. que sa wërsëg fépp foo munti nekk sa wërsëg dina la fa fekk. Mhm. fépp foo munti nekk sa wërsëg dina la fay fekk. Mhm. tey su yàlla bindoon ne que ni yow mii nii nii nii war nga euh, dem Paris. suba wala gannaaw suba doo xam sax condition yu mën tax nga dem fa. man wax naa ne ba may dem Canada fukki dërëm lu may lekk sax aw ma ko lan moo ma yóbbu Canada lan moo tax donc moo dem ba foofu ba yegg fa ba dellusiwaat. mais mbirum yàlla la. Mm-hmm. mais day fekk itam man maam gëm-gëm di que mm-hmm. que ñële gëmuñu gëmeew gënuñu si lenn mm-hmm. que ñoom lu ñu def ba tedd ñun mun nañ def ba raw ko donc loolu la moo ko mën def que ñu mën gëm si lu ñu mën gëm alo allo oui ah, bonjour oh, bonjour ça va comment vous allez ça va alhamdulilah allo allo allo ligne bi moo xaw a saturé ba tax na euh, ñu bëgg du mënuñu fexe ba ba ba mën a wax ak gars yi quoi donc mën nañ continue ak Ansou. allo allo oui allo. waaw c'est Sédhiou 24. oui c'est Sédhiou 24 quoi. waaw ah, ok d'accord donc euh, je souhaiterais participer à l'émission. merci beaucoup bismillah ñu ngi lay déglu. Ah. vous m'entendez. oui oui allez-y Voilà, donc je souhaiterais, voilà, donc je souhaiterais donner ma contribution sur, par rapport à l'émission. Oui, allez-y. Voilà, donc euh, d'abord, je inviter le on contenant, en l'occurrence, en Soussane. Bédiora la quoi. Voilà, donc, euh, vais c'est du golf Bédou contenant. Mhm. Bébé Diola. Et pas de plus, je salue Vraiment, c'est mhm. bon. Euh, pour ce qui est de, du thème, mhm. Euh, donc, euh, moi, je souhaiterais dire que je souhaiterais parler spécifiquement de Sédou, mhm. de la jeunesse sédouase. Effectivement. Voilà, donc, euh, puisque quand on dit immigration clandestine, ça mhm. concerne tout le monde. Ça concerne toutes les parties du Sénégal. Mhm. Donc, de manière particulière, je souhaiterais parler de la jeunesse de Sédou. D'accord. Voilà, donc, <clears throat> moi, je pense que pour ce qui se passe à Sédou actuellement, c'est unique au Sénégal. Ok. Bien vrai que les autorités sont en train de faire de leur mieux. Mhm. En l'occurrence, euh, l'invité qui est M. Anzou Sané, mhm. vraiment, un bon donc il est en train de, de faire de son mieux mhm. pour essayer de réunir la jeunesse autour de l'essentiel. Mais ça manque, ça reste. Je sais qu'il ne peut pas tout faire. Voilà, mais pour ce qui est de la jeunesse séduite, il faut que mhm. Wado Fanam qu'est-ce que mhm. nous pouvons apporter à notre jeunesse en tant que telle, mhm. d'abord Parce que c'est cette jeunesse qui définit notre destinée. Donc, euh, c'est cette jeunesse qui définit notre destinée. si l'on est en jeunesse, mais qu'elle a sama, mais qu'elle est sama. Mais ni Djoubé, donc. Euh, Mhm. c'est un peu désolant. Mhm. C'est du genre war do budget. Mhm. Bon, mal que boulot blalé. Initiative que kat entreprendre non à jours. C'est autour du Barada, c'est les non C'est bon, avec ça war do budget, il faut il faut il faut il faut il faut lier l'utile à l'agréable comme on le dit. Mais parfois aussi il faut se préoccuper de soi-même. Voilà, se préoccuper de son avenir pour ce qui est du thème de l'immigration clandestine, mhm. c'est un fléau qui touche l'État du Sénégal, au centre même. C'est un problème étatique. Mhm. Ça se trouve au niveau de l'État. Mhm. C'est l'État qui est incompétent de pouvoir gérer sa jeunesse. L'emploi des jeunes est un problème ici au Sénégal. Il il faut qu'on le dise. Effectivement faut pas parfois on, voilà donc il faut que na fombe kering ouais il faut que les choses soient claires quoi voilà mon problème voilà mon problème très bien comme là il faut que les choses soient, soient, soient très claires effectivement quand on, quand on, on voit que parfois c'est désolant et que le dollar de miel que kudo dun dame de miel encore ça ne vaut même pas la peine ni à ah que je on va rester mais ni marque les gens vont partir voilà que là, on ne peut pas, on veut pas, on peut pas aller mettre des policiers devant toutes les portes de, chaque, de chacune des maisons du Sénégal. C'est pas possible. Les gens vont partir, aller. Pourquoi Parce qu'ils sont déçus. Parce que politique, le mieux fait marquer. Parce que lors des campagnes, je vais vous créer 150 000 emplois. Ça, c'est des, des, des parents en l'air. Ça ne se voit pas. 500 000 emplois, alors une jeunesse qui est qui est déçue une jeunesse qui est désespérée et quand mhm. c'est la femme tu veux qu'elle reste jamais elle va partir mhm. quelles que soient les conditions quelles que soient ce qu'elle va trouver là-bas mhm. donc moi bien personne ne, ne, peut, ne, peut, quitter sa maison pour aller se tuer ça ça fait pas mon coquet donc voilà pour, pour, pour, pour que question qu'il me posait pour que question pour me posé mhm. quoi mol se mune keno fo bi mol do mañol wala ko to mañol mi alon ko ila kata pour yesi ye ye sembo ye kele pour bi sina ni ñi ñi saate kono quoi jani butala yete fo fa jio kono qu'est-ce qu'on peut trouver comme, comme, comme, comme, hein. solution quoi Jean, je disais, euh, pourquoi pas bi, mon bool ita ita ita kudo créenola meyatina membatinala ite findinola jam pour kata au niveau international quoi pour que pour que sembo dans sen dole fi quoi ouais. je vous dis je vous dis bol te fenkena parce que bol fente bulu quand on parle de l'entrepreneur amantra bol bla eta la bulu mm-hmm. les bol mole afo iko mm-hmm. pour mm-hmm. avoir pour avoir une jeunesse forte au moins il faut que mole aso de métier soto ni état et école il est mis en le école formation dans toutes les régions du Sénégal au moins mo la mo les qualifications soto école de formation à ana be kala go école de formation là <coughs> soto ta région beto seju jan ni tat nata janto cretef bi jan mais Tajan au niveau, ta, ta, au niveau donc de, du DAC de CFA. DAC de CFA,

Ils ont déposé leur candidature, mais on ne l'a pas pris. Ça, ça, on, le on, on, ça, on, on l'a monsieur M. Sané. Il y a l'encoufle, non C'est-à-dire qu'il pas toute la jeunesse de, de Il y a l'emploi professionnel. Il y a l'emploi, donc diplôme tu as Il y a l'emploi il y a l'emploi. Et comme vous pouvez Vous faites le tour de Sédjou, demandez à la jeunesse séduale hmm. qu'est-ce qui veut aller au niveau du DAC de Sédjou Tout le monde va lever sa main. Mais, il y a le Personne. non je pense que donc. est-ce que quelques-unes bilibijéeto. oui. non yalla en fait wala nanga kamu yalla bi ntete kala fonni mhm. keti ganna pour que ku nga kacca kula mu yalla ko man la munna nte man la munna ta fala wa bi nte la ko wolom euh, ko nga exemple di donc ko ko product yalla euh dagoto euh, euh mhm. dokulal bi jël mu yalla ko wol ni la diplôme lo mais donc dol bi yer mun yalon ko donc wol a jar diplôme la yal kay organiser le dron à l'état djeto yal organiser et étant di la mu yalon ke mu fo ñe malayan dol bu yal na la doku na le récolte ke altan lo donc là, ah, ouais, donc, à chaque récolte, tu peux gagner donc, au minimum de 800 et quelques mille donc, et kilo à 1000 francs parce que n'y balles. Mais, ni mhm. à Dubé, donc, comme on fait, 150 francs, quand on fait un quartier B, mol sirajan le maire sirajan ako quartier ɓe momo mum yalon ko yeppula yeɗa malle lo aɓe wilike men cikata a dilel yela yela yela fen ko folo mais wo effort olon fa effortante onte ye financement ka janto donc ka ci ka di musol musol ka katal de parce que wol alhamdulillah rabbil alamin jamal bi jemu yalon ko bi tatal fo et financement mun soto donc de la part donc du maire itata fe ko bo janta kita mali kita sous région te le commerce sol ke mu yalon ko ibital to ñam ñim problème o a manqué problème entre état et les jeunes

Fassar Dabo. Mhm. waaw ça va depuis waati moom bàyyi si le cadeau, même man dunoo émission en tout cas. waaw li ñu la ba saturé si si j'ai compris mais mbe invité kontona mbal kontona fanan ko ayani idi mhm, depuis que agotan sereri mbale kacala quoi c'est d'ailleurs ñëwaatoo kono sax ça fait vraiment l'objet de pas mal de cas quoi mi ne bon famille jama bi actuellement ils sont en deuil à cause de ça mhm. Mais ce qu'il faut comprendre, l'immigration clandestine, il y a les cas africains, soit dans un pays d'eau. Mm-hmm. Mais a les pauvres, ça les des de la célébrité pays riches, pour l'immigration clandestine. Une mm-hmm. la perception, voilà. Hein. Les Européens, ils sont en Europe, ils viennent en Afrique, hein. par exemple, Sénégal. Comment que l'immigration clandestine même si mille fois l'immigration, la plupart sont des pédophiles ou bien des homosexuels ou autre chose ont africain et la plupart. Heureusement, ici à Sénégal, on est à 95% de musulmans. Je dirais même 100% Sénégal population, ce sont des, des religieux. Le Sénégal est fort il est, il est né dans des conditions où euh, la personne doit être née. je ne crois pas qu'il y a beaucoup de gens qui Ni moi, je ne parce que ni le choix ɓe mbittina molko funti molkata yaalo bon moo peut être a baɗira walla le fait que molko bojan e kata pourquoi molte silanataare eɓe sila ñaadi le vous prenez l' exemple yeke père de famille oti ila sook ila dimbaali yemuti ila sookono pendant une semaine man domordile ya domo oyta ita funtila par la force eɓe funtilale le sénégal c'est un pays miyalon ko la plupart ndolo no dirigeant wol ils sont faux il y a que des menteurs c'est ça

cest que il faut que nous, jeunesse bi ñu bay di dañuy fekk mënul il faut que nous ñu vers l'information dem devons ji xam lu xew xam lo ko pour am am donc lu ñu mhm. mais so croiser les bras Croisez les bras mhm. voilà gars suñuy dem nga toog di du munul dem mhm. ci loolu lañuy la ñuy taxawal euh, dañu gis ni dañuy dugg ci tuuti ci ci ci parce que gis nañu fii ci diwaanu Sédhiou particulièrement ñi nga xam ne topp nañu euh, monsieur Abdoulaye Diop ay jeunes ñoo allo oui allo oui waaw Sédhiou ci Sédhiou 24 allo allo Pape Allez-y, on vous écoute. Allô Oui. Euh, monde, Voilà. Allô, euh Allô Allô Ndiaye. Adam Ndiaye. Uh-huh. Euh, là depuis euh, Montréal. Montréal. Uh-huh. Ouais, là content et uh-huh. puis de Marc une Mhm. Donc euh, on va content là. Euh, d'abord, chapeau pour Anso parce qu'il faut, avoir le courage de, faire face à un tel sujet. Parce que l'immigration clandestine, ça n'a rien à à mon lobby. Alors, je me rappelle, euh, notamment, euh, l'oncle Zawato, il y a 40 ans, c'était dans les 30, 000 ans, hein? mmh. Donc, euh, les anciens, là, il nous vendait des miracles, c'est-à-dire ni Tata ni Nata. Bon, euh, mirage, parce que mon nom, Nata, Nata, transformé. Mhm. Euh, et que tu aies des diplômes ou pas, qui transforme. Parce que mon donc, donc euh, la vie était presque rose là-bas, mais un pita manqué. Euh, euh, on ne se plaint pas, parce que ici, euh, on a plus besoin de main-d'œuvre que, que, que, que, que Fendo. Hmm. Mais quand tu regardes ce qui se passe euh, en Europe, euh, mon euh, et que tant de désert, on a, on a, euh, comment dirais-je, pirogol pirogue, tout ça là. Euh, c'est catastrophique. Tout va vous dire ça. Même si j'ai toujours refusé que pas Bondanga Dindoma là, il pas tout Parce que nous aussi, local, la route est parsemée que, que, que vraiment obstacle ni à que si tu restes au Sénégal, tu acceptes de franchir ces obstacles-là, tu es au en frontière et tu vas avec mhm. Parce que ni son temps qui pour Kafa. Il était son qui est pour l'État. Tu fais l'entretien ménager, tu fais la peinture, l'État, c'est non là où les fendo. Pourtant, tout ça là, c'est au Sénégal. Moi, beaucoup sont encore ok, mais les gens, ils préfèrent aller à l'extérieur, même si tu n'as pas euh, de qualification, encore moins des diplômes. Tu veux, tu veux voyager. Mais avant d'y aller, d'abord, il y a des questions, il y a des problèmes de langue, il y a des problèmes de papier surtout, il y a des problèmes de logement, ni à ni comment tu vas te loger. Et quand tu arrives, tu n'es qu'un numéro. Parce que tu n'es qu'un dossier. dossier. Mon dossier, le tien. Donc, euh, euh, il ika moolu kontewo tant que iman kayitoo soto donc niman kayitoo soto iman tuba abdou dialonde mhm. voilà niman autres, il iman tuba abdou dialon surtout encore bi abdou bi abdou en tout cas en il a vu quand même les gens qu'est-ce qu'ils ont vécu là-bas mais c'est la triste réalité je peux te dire que Mbadi Mandjakor, il y en a pas centaines, Parce que l'immigration, on est qu'à une nation, on le dit. Nous, on a eu la chance que Tambi Karanko, le Canadien, mais. Et encore que, Kao Karan au fond. on mhm. Parce que oui, nous allons, j'allais finir mon cycle, hein, allons maîtrise au banc, parce que une licence, on a beau ensuite. Mais maîtrise au banc, là, maintenant, on parce que j'en ai dans Canada. J'ai repris hein, le baccalauréat, qui est, qui, est équivalent à une, à une licence. Mais wow, pour une année seulement, c'est plus de 10 millions, et quand même dépensé. Imagine-toi, moi, je suis en c'est-à-dire ils vont rester là-bas pour chercher un lendemain meilleur. Kata Toubabdou, Anika Toubabdou, c'est deux choses différentes. Il faut que les gens comprennent ça aussi, parce que tu peux faire, tu vois, des gens qui ont fait 40 ans ici, pour que ces femmes ils maloulés. Mais au moins, souvent, ils sont tentés parce que euh, l'État, moins que l'État mais l'immigration, la mon faut l'oublier. Et l'État ne peut pas tout faire le pire encore, nous, on parle de jours, de Casamance. N'oubliez pas, hein, on, avait, euh, on vivait une période sombre. Le réunion les investisseurs avaient des problèmes pour Canada. Euh, que, qu'un projet Donc, on pouvait compter que sur quoi Sur l'État et les immigrés. Donc, bon, c'est pas quelque chose mis à l'encontre. C'est donné à tout le monde. C'est peut-être difficile de venir investir ton argent. Et il y a aussi c'est euh, ce qu'on appelle aussi euh, la discipline du travail. Parce que les gens, il faut qu'ils soient disciplinés pour le travail. Parce que quand tu as de la famille là-bas, tu leur envoies de l'argent pour travailler. Ou bien des amis qui mal. Quand faut, je vais te financer sur un tel projet. Mais Nina a compté les gens, mis alors qu'il y a un douka. Euh, ils m'ont tapé par le dos. Parce que j'ai voulu les, les aider. Les amis des parents, qui m'accueillent. Mhm. Donc ces gens-là aujourd'hui, tu t'imagines, après ils vont coller la faute à l'État. Ils vont faire l'État manique. État Mais ce que la société, parce que c'est un phénomène social, comme l'avait dit en dessous. Parce que ni moment de monde qui fait. Et ni tata ni tata nata, même si dont on n'a pas ni nata, ni en tout l'autre avant, et même le jour là dit qu'il mhm. en pourquoi ça Parce que c'est un complexe de l'Occident qu'on a. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, cet Occident-là, la plupart des gens qui ont étudié là-bas, qui ont eu un, petit départ de 500 000, ils font le retour en Afrique bicanaire investiguée. C'est-à-dire, il là, Dolbinala, il là. J'ai un ami aujourd'hui, je vais te dire, je vais vous dire ça, c'est lui le, directeur du quatrième patronat, il était aux États-Unis, hein. Biatel, non, bi 84 ans directeur. Mais qu'est-ce qu'il a commencé Gabriel Bota des États-Unis, avec Aïniewa Folo Folo, Senkoto, euh, euh, Sumbedjou. Donc, Bi, euh, c'est un grand patron. Mais pourquoi nous, on ne peut pas être fiers de ce qu'on a Parce que ce n'est pas la crête, de la réussite. Les gens sont restés au Sénégal. Il y a beaucoup d'exemples qu'on peut citer. Ils n'ont bougé. Ils m'ont tablé. Ils m'ont tablé mais nous tekki Sénégal Casamance bii ñu tey bii ñu s'en fout na grand si mon père était encore vivant avec égal maintenant bi. je pensais pas je penserais pas que j'allais voyager parce que na Dakar non waati mi na nga bakoo soto sama kono na si tanka bo seju nga ta bloc c'est non là on avait un autre jour, c'est non, ok. Donc, et j'avais tout, je pouvais voyager, dans la Gambie, dans la Finkoto, à travers le monde cool. Mais au Bankolpi, à Bidje, à Nisama. Est-ce que les gens exploitent ça? C'est faisons nos au Bénin, Bankolan mais il t'a fallu mo ye t'a sen'o kɛ a b'a fɔ non ne c'est sen'o kɛ pourtant n'a futata Il va b'a sanbolo wulol kɔnɔ a ye taa pomol katije ani Orange, ni fɛnkol ou bien à ye taara entretienw la et tout ça là donc o dɔw kol pourtant du sénégal même si c'est quarante mille là quand tu combats le pouvoir d'achat jan ani tu vas voir que tu vas vivre mieux que même bɛ ou wala maroc wala comment dire wala france parce que moi min bɛ qui est là, comme avec les salaires 700 euros, 1000 euros, ay buum à la transport o jooyaa économiser Aïe, 10 millions économiser voilà, 20 millions à la fin compte. c'est pas facile hein mhm. c'est pas du tout facile mhm. donc ce qui veut dire que <laughs> la plupart de ces gens-là, quand ils rentrent là, au lieu de dire la vérité aux gens, au lieu de dire non, alors ils sont dans leur entourage, qui est éduqué sur ce plan-là, qui est conscientisé, qui a, essayé, qui est et qui est canalisé parce que Bintol immigrés, c'est nous qui participons plus que les, les, les ONG là. Mm -hmm. Mais si on se sert de ça pour créer des projets, pour aider nos familles respectives, moi les là, euh, avancement de ce Parce que l'État, mhm. euh, bien Makisa, si ou la euh, il ne peut pas régler cette question. Ça c'est mhm. clair. C'est mhm. une continuité et les gens vont continuer à voyager parce que c'est vrai que le système, ah, ils ont, ils ont travaillé. Et donc, pour les il y a sécurisé. Si tu es malade, ils te font non ni ni et puis il y a condition environnement il y a deux coulées mais pourquoi nous alors que on sait que le Sénégal est un pays sous-développé Il mhm. ne faut pas ah. oublier ça ah, Allô Donc, un pays souffre de il ne peut pas tout faire. Vous comprenez okay, Donc, y a, y a, c'était intéressant. Je voulais apporter encore plus, mais je ne veux pas monopoliser la parole. Mais vraiment, chapeau à Ansou parce que tu as eu le courage d'affronter cette question-là. Amand Dimobé, là, c'est clair. Donc, je vous remercie vraiment, Studio 24. Et puis, Merci beaucoup. Bon, Albert Silo, maintenant, Al-Wakil, Al-Kana, Al-Kana Boulen

gune yi topp nañ ko macha allah te gune yi dañuy ñu bëri dañuy miser seen bopp ci ki nga xam ne mooy Abdoulaye Diop te xam nañu comme moom am nañu fi fekkoon am na am na am nañu balaa moo ñëw am ñu fi nekkoon te moom suba lay dem est-ce que le fait que xale yi miser seen bopp miser seen seen seen dund laa wax ci moom est-ce que suba loolu moo ñu indi gàllankoor par rapport ak seen dund ñoom voilà laaj nga ma loo xam ne dinaa si sawar a tontu mhm. euh, di profité waale sax comme tudd nga Abdoulaye Diop. Mhm. di remercier le président de la République pour confiance bu mu renouveler ci suñu maire et ministre. Mhm. muy Abdoulaye Diop. allo. Mhm. allo oui Salam salaamaaleykum mbokk mi tur bi ak fay wootee. waaw man la euh, Mamadou Lamine Sané. Mamadou Lamine Sané ko ci turu Paa bi Sané. ok. Euh, maa ngi leen di sant di leen gërëm.